alaikum wa rahmatullah mbok internet chaîne football TV ñu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa ne defal vidéo mbok yi di leen wax ne euh, maillot yi blouson yi casquette yi c'est toujours disponible sur chaîne football TV au 77 352 31 01 ñi bëgg ay plan yu rafet ay euh, ay cœur xam donc euh, en construction Il y c'est disponible aussi tamit sur le même numéro xam donc 77 352 31 01 après ça, nous leen jox numéro bi xamantene direct da ngay di jot mais euh, ba tey c'est la même chose numéro bi bon leen ko contacter euh, pour ñi bëgg ay casquettes ay maillots même numéro bi la pour ñi bëgg tamit xam donc tout ce qui est plan tout ce qui est cœur xam en construction ñu wara tabax ñaar yëp mën na nekk sur le même numéro contacter nek si ay prix nak yu abordable donc yéen ñi bëgg cœur numéro bi mo nekk noonu 77 352 31 01 mbokk damay ñëw rek jox leen ay xibaar xibaar ne dama koy dooree euh, fële ci Angleterre wax si kii di Pamata Matar Sarr Pape Matar Sarr nag bu ma waxee ci moom. Euh, lañu tey jii dañu gis sànq benn tasu xibaar bu nekk Espagne duñu xamal ni comme quoi waa Espagne di nañ ci mbir mi lenn rek moo ko waral nag dañoo laajte waxtaan nañ Tottenham Tottenham ne jaay ñu pare si ñoom maanaam da fekk li ñu àlleen euh, kii ñoom génne nañ si ba seet wecc xam nga loolu Séville moo si njëkkoon dugg génne si parce que waa waa waa waa Tottenham dañ bëgg ñu jaay waa Salernitana dugg na si euh, équipe bu Boulaye après waa Tottenham waxaat ñoom taxul ñu ne ñoo seen priorité mais da ngay gis ne wu boobu ba léegi du moment où que euh, Pape Matar Sarr gis nañ ko teg nañ ko tëdd dans un match bii gën a tàng pour moom pour waa Tottenham bii gën bi gën méti métti bi ñu bokk na si ni ñu gën bi ñu gën a fonk wala ñu gën ko fonk sax laay wax muy contre Arsenal ñu teg ko titulaire ça veut dire que confiance bi nga xamante Anthony Antonio Conte moo ñu koy wax boobu ba léegi dama am confiance si booy bi c'est l'avenir de Tottenham wane na ko donc tout ça fait que Antoine Antoine ak Pape Matar Sarr ak le club dañuy jël la décision de rester donc euh, Lolo t'as na qui di Pape Matar Sarr du dem donc mon mon franchement wax na leen lu leer me bouger maa ci club bi je reste est-ce que c'est un bon choix nag loolu la may bàyyi Antonio est-ce que la fekk mu toog foofu c'est da ko doon Brighton de temps de jeu euh, Sénégalais a gis seen talent di Pape Matar Sarr en tout cas xam leen si si bi de Barcelone génne nañ ci mbir mi message boobu léegi naan merci pour les infos merci à vous yéen di seetaan ni commentaire di like merci à vous bu ma jógee foofu wax si Gomis Gomis nag euh, mu ngi dem ci benn kër bi ñu wax comme euh Gomis mi di Alfred Gomis la wax dem na ba nekk quatrième gardien dem na ba ñu sànni ko sax si réserve bi xam pas de respect moo tax moom def na benn benn entretien si biir dans la semaine ne ma su woon xalaat ne dinañ ko def loolu mënoo nekk de numéro un à quatrième un gardien international sénégalais tout le temps appelé dem coupe du monde xam nga waroon nañu la jox cër quoi. surtout que pourtant en terme de statistique bu fekkee mooy mooy wax les hommes mentent mais les chiffres du ñu fen quoi xam nga nit mën na wax loolu ne mais chiffres yi ça bokk si ñi gën baax statistique gardien de but France xam parfois da ngay xool gardien ni mu def ñaar ñetti nga bëgg a toppee benn boo xamante ne voilà alors que tous les gardiens bi dañuy def erreur ak loo mën a waxal Gomis nag moom nag euh, boobu léegi mu doon xaar xam naa ne gars yi doon négocier suuf mu dem deuxième division moom ak Fabregas ñoo bokk équipe xam donc muy wax comme. bon série B la nek manam début deuxième division Italie dañ koy souhaité bon sens parce que ak lo meuna wax moy ce moy moy ce deuxième gardien et on sait que derrière il y a d'autres gardiens qui poussent très bien xam le cas de Ivan Diouf bi nekk Reims boy booy la xam le cas de Mory Diaw donc Gomis fallait que mu changé parce que sans ça Aliou Cissé d'autres ko convoqué te gardien bi na nga góolu rek ak championnat bo meuna nek na nga góolu am compétition rek c'est c'est le plus important du moins que yow te le numéro 1 au Sénégal xam nga donc voilà quoi avoir nag moment Seny Dieng pour man débat mën a taxaw pour Seny Dieng nekk numéro 2 si gis mbokk yi nag damay jeexalee vidéo yi si kii di euh, euh, Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye bu ñu sukkandikoo ay taskatu xibaar ñu ne foofu si Angleterre waaye Everton pare woon nañu ba génne 23 millions waa kii ñoo bañ équipe bii di Sheffield United ñoo bañ na du ñu jaay euh, seen Iliman Ndiaye seen Diamant Brut seen phénomène seen or seen produit ni ñu ko fonkee jox ko cër donc ça veut dire que le valeur moom monte man 9 millions la daan c'est vrai qu'en termes de passe décisives li nga joxe si ay passes décisives li nga dugal ay c'est normal que tu dépasses li nga xamante ne euh, gars yi moom lañ jàpp ne parce que transfert marque loolu la mais c'est un dafa dafa cher et je pense que li mu jot a première partie saison bu ko confirmer en deuxième partie mais ce sera mais extraordinaire lu lu Sénégalais mosul def championship lay def boobaa parce que ni mu dugalagul nii c'est déjà quelque chose mën na dem battre ay records yu donc du coup sûrement dina à savoir que Everton man bu ñu like xam nañ c'est cas bu critique donc ñu euh, Frank Lampard donc euh, bon à voir mercato je pense pas que dina bouger hein. je pense que bu bouger a lay joggé fi di euh, fi di wala mu continuer fa confirmer Premier parce que ils sont bien armée pour mën a seet seen seen premier waa dëgg fi yàlla c'est final que ça la méthode de l'entraîneur pour man ça marche très bien et chaque week-end ñu koy wan euh, franchement euh, en de résultat mbokk yi lii mu nekkoon ay xibaar yoo xamante ne bëggoon naa ko partager ak yéen ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba beneen sur seen football TV.